courant bi moy tax ah su Sénégal nexa a jaay boy liguey ci courant courant bi ser li ngay jaay à l'extérieur l'exportation dootul mën a dox bu baax. voilà merci ñew leen. waaw nu courant bi yombee nak ce prix de vente mën gëna yombo nga gëna compétitif sur le marché international. bu ko défé Sénégal ñëpp mën ci gis seen bop sa entreprise bari duñu daanu mais tant que ñi ngi yok courant bi ni pour moins de production yi di gëna yok Sénégal ci suuf la jëm té lolu arrangé wul kenn. kon nak ñi ko mëna xam bari wuñu kon nak nañu dimbali nañu dimbali la la compréhension han ah, ka xamni ñun joguñu pour yaax dañu jog pour défar waaw fa tabarakallah loolu moo tax ñu génn waaw ku génn nak xayrul ku génnul xayrul askan bi dafa sonu askan bi dafa sonu askan bi dafa sonu askan bi dafa sonu askan bi dafa sonu askan bi dafa sonu askan bi dafa sonu ñoo bañ ñoo lank. ñoo bañ ñoo lank. Nous bañ ñoo lank. ñoo bañ ñoo lu ñu wax mooy lenn ñun askan bi sonu nañu suñu papa yi nañu suñu nañu affaire bi la intéressé que ni tay ji jamono toll ni tay Sénélec dafa ne dafa def bénéfice ñun suñu amé courant bo dañuy dem Mali ak Gambie mais il faut que les gens soient sérieux aussi buñu insulter suñu intelligence parce que tamit dañu dañu am courant bay jaay Gambie ak Mali ah mais si am lu ëpp kay de jaay war ñu demaat di ab bateau pour koo xamante pour dañuy dañuy courant ah donc c'est euh, en fait dafa am une incohérence bu la communication bi nga une ni communication au Sénélec et je pense que nous, on n'est pas là pour cibler qui que ce soit on n'est pas là pour contre qui que ce soit Ce ñu bëgg rek mooy nañu alléger souffrance de askan parce que askan bi moo tànn

alalu askan bi lolou fakk faut mu dañ appareil bobu ñu teg digënté mol 10 ak mol 8 bu dé mom moo tax courant bi di yokku han ah, nañu wax nit ñi appareil bi ñun dañ ko luwé nangam nangam ole ka ñii ne nit ñi dañoo ab appareil lolou du dëgg dañ leen jox ay auto jox leen bureau climatisé jox leen kër climatisé fay ñu courant fay ñu ndox muy ministre bi muy député bi ak ambassadeurs yi salaire yoy nañ ko wàññi ñu faté ko turu yi mo gën ñuy toroxal askanu Sénégal état bi nak dafa melni mafia ba ñuy ne mafia Italie euh, à l'époque dafa melni suñu état mafia Italie la ak à l'heure actuelle parce que nu ñuy noté askan bi dafa metti nañu wàññi lolu nañu xol askan bi yërem askan bi ah entreprise yi ñëp ñu ngi tëj boo demee Moldis entreprise yu bëri dañ fa tëj. té buñu tejé entreprise ñom buñ koy liquider duñu wax dëgg bi Africa Mer mu ngi ni bañ ko liquider dañu né 2 milliards 700 millions alors que 9 milliards la hein ah, mettre des employés en colère lolu yépp dafa bizarre état bo xamna ni du ko organiser dara luy dëgg lolu dafa ñaaw quoi ngeen bal manaka ah. le procès

man Macky bu mu xool ni fi nekk ci peu de mbooloo na xool ni le peuple Sénégal ñu ngi toog seen biir kër di ko ñaxtu te mënuñu génn te ñu def yenn yi ñu ñaan mu dellu ginnaaw wàcc courant bi fa mu nekkoon mu jéem ñu ko wàññi sax parce que boo demee ci rapport banque mondiale yi boo demee ci encore rapport FMI yi ñu ngi ni ñu koy wax ni ko na wàññi exonération bi muy accordé des mieux nantis ñi nga xam ni ñoo nekk ci donkaasig yi nga xam ni ñoom jaru jaru leen ñuy génn. ñu koy ñaan Macky te yàlla tax nga delloo courant bi fa mu nekkoon soo ko mënee gën a wàcce sax nga gën ko wàcce li ci des bariwul maa ngi lay ñaan aussi yow Macky Sall dina ñaan dafa nag am fu mu yem mais ñi ngi lay ñaan. ñi nga jàpp ñëpp ndax courant bi nga bàyyi leen waaw ñi nga xam ne gaañ nga leen fa ci prison yi nga faj leen bàyyi leen ca may leen jàmm waaw suñu taxaw fii nag du question de politique du question de parti mais question de vécu quotidien la loo xam ne dañ koy dund bés bu jot suñu doom yi bu ñu fayul courant dañuy coupé ñu mën a jàng seen leçon yi ah ah waaw suñu sët yi dañu sonn parce que bu ñu amulee courant yenn yi mën loo boyal ci courant bi nga mën a branché pour mën a tàngal biberon xale yi waaw loolu yëpp nag bu ñu nari bu ñu naree egg foofu dinañu génn wax la ko waaw boo ko bu la ko ñir sës si yow waxulee télévision yi a rajo yi dinañ la ko wax nga dégg ko fa tabaarakallaa ku dégg wax ji nag na nga ko jottali mu jëm ci ñi si wër président ñu xam ni bu ñu yërëmee yërëmuñu ñun ñi fi taxaw Sénégal rek la ñu gër yërëm waaw loolu après waaw xeex bi dañu fas yéene chaque àjjuma ñu ñëw fii même buñ doon ñaar sax nañ ñëw ba li ñuy faj mu faju ñun lu ñu algériens yi gënee quarante troisième passé nañ ko vendredi saa ñu waree ñaan dinañu ñaan ñu sommes de légalistes nous sommes des légalistes légalistes. oui oui. lu légal rek la ñuy def lu légalul duñ ko def.